لله رب العالمين نحمده سبحانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته نحمده سبحانه عدد شعرات البشر نحمده سبحانه عدد حبات الأرض نحمده سبحانه وتعالى عدد نجوم السماء خلق السماوات بغير عمل ترونها طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور بسط الأرض على ماء فجمت وجعل فيها رواسي شامخات وأسقانا ماء فراتا وجعلها مهادا لنا ثم نمشي في مناكبها نبتغي من رزقه وإليه النشور خلق الخلق سبحانه فأحصاهم عددا عرفهم فعلمهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ثم بعد ذلك قسم الرزق على أعدل الكيفيات فلم ينس أحدا فمن علامات العقيدة الصحيحة أن يرضى المؤمن بما قضى, بما قضى الله سبحانه أن يرضى المؤمن بقضاء الله سبحانه وقدره وبما قسم له من رزق وما قدر له من مواهب ومن حظوظ فيؤمن بعدل الله أحكم الحاكمين وبحكمته فيما قسم ووزع وهذا هو هو معنى القناعة الحقيقي الذي حث عليه الدين وأشاد به الحكماء والصالحون وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس إن القناعة كنز ليس, ليس بالفاني فاغنم أخي فديت عيشها الفاني وعش قنوعا بلا حرص ولا طمع تعش حميدا رفيع القدر والشاني ليس الغني كثير المال يحزنه لحادث الدهر أو للوارث شاني إن الغني غني النفس قانعها موفر الحظ من زهد وإيمان يقول المولى عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون وهذا التفاوت يا عباد الله في حد ذاته ابتلاء بين الناس ابتلاء للغني بالزيادة وابتلاء للفقير بالنقص وليس في التفاضل بينهما في الرزق دليل على التفاضل في الدنيا والمنزلة عند الله بل الغالب في نصوص الشرع لمن تأمله أن الفقر أسلم خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن ولا بد هناك من وقفة نافعة زائدة إن شاء الله ألا وهي أن بعض الملتزمين الزاهدين قد ظنوا كلمة القناعة فحسبوها فحسبوها الرضا بالدون والحياة الهون وضعف الهمة عن طلب معالي الأمور وإماتة رغبة الطموح إلى الرقى المادي والمعنوي وتمجيد الجوع والفقر والحرمان وهذا كله يا عباد الله خطأ واضح وضلال بعيد والحق أن القناعة لا تعني شيئا من ذلك إذا فماذا تعني؟ تعني أن الإنسان بطبيعته شديد الطمع والحرص على الدنيا لا يكاد يشبع منها أو يهتوي اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب وفي رواية ولا يملأ عين ابن آدم قال عفان ثم يتوب الله على من تاب متفق عليه وأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعة رواه أبو نعيم في الحلية وصححه شيخ ناصر الألباني في صحيح الجامع يقول المولى عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله تأمل معي حالنا اليوم وهمتنا وحرصنا على الدنيا ولا فتنا فإذا الحال عجيب جد عجيب فصاحب المال يسعى لإنمائه واستثماره كيفما شاء وصاحب الدار يسعى لتجميل داره وكل منا يرى ما في يد غيره ولا يرى ما في يده قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال رواه الترمذي وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم إن أعطي رضي وإن منع سخط رواه البخاري وقال علي بن أبي طالب من أحب الدنيا والدرهم كان عبدا لهما ما عاش يقول المولى عز وجل لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لتفتنهم فيه لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى طه يقول الإمام الجليل الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله أي لا تنظر إلى هؤلاء المترفين وأشباههم وأشباههم ونظراءهم مما فيه من مما هم فيه من النعيم فإنما هي زهرة زهرة زائلة ونعمة حائلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله ما أتاه رواه مسلم إذا كنت في الدنيا قنوعا فأنت ومالك الدنيا سواء وقال صلى الله عليه وآله وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزا له الدنيا بحذافيرها رواه الترمذي وقال صلى الله عليه وآله وسلم من كانت هم الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة رواه الإمام أحمد في المسند وجاء رجل إلى يونس بن عبيد يشكو ضيق حاله فقال له يونس أيسرك ببصرك هذا مئة ألف ألف درهم قال الرجل لا فقال فبيدك مئة ألف درهم قال الرجل لا قال فبرجلك مئة ألف قال لا ثم ذكر نعم الله عليه وقال أرى عندك مئين الألوف وأنت تشكو الحاجة إذا يا عبد الله فارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس ولا تنظر إلى من هو فوقك من حدود الدنيا وانظر إلى من هو دونك وانظر إلى هؤلاء الذين بخسوا حظوظهم أو بخسوا حدودهم الدنيوي وما أعطاهم الله انظر مثلا إلى عطاء بن أبي الرباح عالم الدنيا في عهده مولى الأسود أطش أشلل أشل مفلفل الشعر وانظر أيضا إلى الأحنف بن قيس حليم العرب قاطبة نحيف الجسم أحدب الظهر أحنى الساقين ضعيف البنية وانظر أيضا إلى الأعمش محدث الدنيا من الموالي ضعيف البصر فقير ذات فقير ذات اليد فقير ذات اليد ممزق الثياب رث الهيئة والمنزل فرض يا عبد الله ما قسم الله لك تكن أغنى الناس أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين مكي نوغي سانت سونو بروم سبحانه وتعالى دي جولي دي سلمل ci sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam noongi ñaan mucc ko yàlla ak jàmmam ak andaari xéewalam yàlla na borom bi subhaanahu wa taala dëkkee koo dott ci kaw yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam ak ay saxaabaam ak ay njabootam ak ay soxnaam ak képp ku koy topp te di ko roy ila yawm alqiyaama noo ngi toftalu sunu xutbay tey ci xutba jaweetu woon ci leeral yenn ci yoon yi nga xam ne doomu aadama yi dañ koy jaar ngir fàggoo ko wërsëg bay jaar ci yoon yu lislaam di tere nu leeraloon ci xam ne wu yées la wu bon la muy riba ak ya ca aju te it ca biir tomb booba ca la aklu amwaali naasi bil baatili di dugg lekk alal nit ñi ci neen ci ak caaxaan ak i naxe ak i tappale sunu xutbay tey ji mi ngi jëm ci warda bi ma xasama allahu laka takun agna nnaas soo bëggee noppal soo bëggee noppal li la yàlla tedd ci boppam da ngay kontaan ca loola nga doyloo su boobaa da nga nekk koo xam ni ku bari la ngay doon dëgg-dëgg yàlla ko yeyoo sant la subhaanahu wa taala cant goo xam ni bu amee tàmbaliit nag ab yamukaay du ko am dees na ko sant ndax moonu moom moonu bind moonuy wërsëgal moonuy jox moonuy xañ dees na ko sant ndax lu nëw ci xéewal moonu ko defal dees na ko sant ndax jamono bu ne ay xéewalam mi ngi ba ballu lu ci asamaan di wàccee ci asamaan di ballu ci suuf di ñëw fi nun te deful lenn loo xam ne lu tolloo lam nuy jox ci ay xéewal la kooku day ku yeyoo cant la cant ga it waamee tàmbalikaay wër ta am yemukaay moo tax dees na ko sant moom sunu borom adada xalqi cant goo xam ne lim ba day tolloo ak bariwaay lu toll ni li mu bind ci ay mbindeef yépp nit ak lu dul nit dees na ko cant cant goo xam ni bariwaay nga day tolloo diisaayu poids ba nga xam ni moom la aras di pesé dees na ko sant moom sunu borom cant goo xam ni day tolloo la muy am ci ay kàddu moom sunu borom suñ ko bët bëggoon a wutal daa ju koy bind te alquran di saxal ni loola suñu jëloon àddina yi géej géej gi ne ci àddina bi yépp ñu soppi ko daa garab yi ne ci kaw suuf yépp ñu soppi koy xalima ngir bind waxi sunu borom subhanahu wa taala géej yaay jeex xalima ya jeex wax ya du xaar noo ngi koy sant cant gu doy noonu noo ngi koy sant sunu borom cant gu tooyal ni bépp bépp karaw bu sax ci bopp doomu aadama buy dund ci kaw suuf noo ngi koy sant sunu borom cant goo xam daa toll ni bépp xeetu bépp suuf boo xam ni sunu borom def na ko ci kaw suuf si noo ngi koy sant moom sunu borom cant goo xam dafay tolloog limab li ne ci asamaan ci ay biddiw noo ngi koy sant ba mu kontaan moom sunu borom subhanahu wa taala sunu borom mooy ki bind asamaan mu tàllal ko mu ni ñaay àddina bi yépp am ci seen wàll te amul benn kenn bu nu gis bu ko téye ba mu noppee moom sunu borom mu def ko liggéey bu mucc ayib boo xam ne boo seenee doo seen yàqu-yàqu fëkk-fëkk ak li àddina bi yàgg-yàgg sunu borom ni boo amul la leer farji al basar delluwaatal sa bët nga vérifié waat la nga xooloon ndax mu gën a wóor bët bi dana dellu siwaat rus ndax lam doon wër du ko gis ndax yàqu-yàqu amul ci asamaan sunu borom mooy ki lal suuf si ci kaw ndox suuf ak poids bi mu yor ni mu diise sunu borom lal ko ci kaw ndox mu ni dégg te ba léegi mu tëfagut borom bi subhanahu wa taala defar ni ci ay yoon yu nuy jaar di fàggu ci wërsëgam wi def ko mu nooy nepp nekk doxukaay tegukaay tëddukaay nanu yëg ni lii lépp màndarga mu luy wan ni bu nu dee ca moom lañ jëm sunu borom subhanahu wa taala wax na fee ca loola moo sàkk doomu aadama yépp nag bi mu leen sàkkee xam na leen xam seen ab lim xam ku ne noo tudd ak fa nga dëkk loo nuroo nuroo nuroo ak sa moroom kook sa meneen moroom lay jaaxal waaye du jaaxal sa borom xam na leen ñoom ñépp te kenn ku ci nekk daan ko dikkal yowmal qiyaama nekk ab jaam ba mu noppee ca loola nag bu daal di séddale wërsëg nag ci melokaan woo xam ni na mu maandoo kenn mënu la koo melal ni mu jubee kenn mënu la koo wax borom bi subhanallah séddale wërsëg nag ci anam wu maam te jub waaye li gën a kiimaane mooy daa fàttewut kenn nag qasama rizqa ala ahdal kayfiyaati walam yansa ahada ci ma anam wi gën a maandu la ko séddale waaye fàttewut kenn nag moom sunu borom ñëpp am seen wàll kon bokk na ci mandarga yi ngëm yàlla gu dëggu ci ab julit mooy mu gërëm nangu kontaan ci li yàlla séddalee wërsëg ak cër yi ni mu ko joxee poste bi mu la jox nga kontaan ci lim la jox ci wërsëg nga doyloo lam la jox nga xam ne nii rekk la baaxee ndax moom moo xam li baax ci yow te moo koy def li muy séddale ci cëri àddina yeeg wërsëg yi it nag nam ko joxee noona rekk la ndax juumut jaaw fàttalewut fàttewut te ba mu koy séddale woo ko dimbale ku ko jàppale yóbbantewut moo ko andil boppam loolu war ngay xam ni kon kii li muy def xam na ko jër du la koy wax bu ko méttit lu it nag bokk na ci xereñe gi yàlla def subhanahu wa taala ci ni mu séddalee doxalinu addina wi it nag nanu yëg ni kon am na li ñuy tuddee doylu dëgg dëgg dëgg nag li borom xam-xam yi wax doylu diine di ci soññe borom xam-xam yi di ci gindiwaate nit ñu baax ñi di ci yare loolu mooy doylu waxkat ba mu ne inna alqanaata kanzun laysa bil faani doylu day ndekete yoo am koom-koom la mu bari moo xam ne du jeex mu ni góorgóorlu nga profité nag doylu kon day dund gu neex a neex di nga ko am waaye boo ko defut dund gu xajam ndax dund gi day jeex wa ishqa nuan bila xirsin wala tamain taish xamidan rafia alqadri walsaani ngal la waaye dundal dund goo xam ne day ànd ak doylu bul bul bul bul mbib mbibit mbibit yu bari bul tëfal tamit ci li yàllay joxe su boobaa day da nga dund dund gu dal say daraja dana yëkkati ku ca kaw ak kaw ba nit ñëpp ñee la te fekk amoo sax lu bari laysa alganiyu kathira almaali yaxsunahu ndeke yoo rek li nit ñi defe ne moo dem koom-koom ndeke loolu dum koom am koom-koom tekkiwul ni mooy alal ju bari joo xam ne da nga koo dajale denc ko li xaadisi dahri aw lil waarisi saani saani ngir di xaar am aajo faj ko ca wala boog nga dee ñu doon ko mu ne loolu du alal loolu la nit ñi foog waaye loolu du alal ju bari mu ne inna alganiya ganiyu nafsi qaaniuha koom-koom de mooy koo xam ni ku oomalu bakkan la doylu li ko yàlla jox moo farul xasbi min zuhdin wa imaanin ku amuk cër la ci dëddu àddina ku amuk cër la ci ngëm yàlla kooka ndeke ku am lu du jeex la moo tax mbokk yi léeg-léeg da nga gis koo xam ni wallahi yàlla xam na ni sutura rek la ko yàlla defal nit ñi dañ koy ñee saasaa sax nag nit ñi bëgg a mel ni moom nag dafa amul dara yàlla def mu doylu du jàmbat du ñëkk du ñàkk du jaay gorom du jaay diineem ba pare melokaanu sutura wi ko yàlla defal daa nuroog ku am nag te amut dara saasaa sax tax taxsabuhum agniyaa ah ndax min ataaqufi laa yasaluna nasa ilxaafan taarifuhum bi siimaahum ñooñu ay jaami yàlla ñu baax te ñu ngi ci biir société bi dund ak noonu yàlla subhanahu wa taala ko ni waaw ndax doomu aadama yi dañuy mettitlu ni yàlla joxee kii ay million jox kii milliard jox kii junni jox la téeméer ki dërëm ndax da ngeen cay mer ndax da ngeen koy jiiñ kenn ndax da ngeen yaakaar ne keneen moo ko def ku dut suñ borom awum yaqsimuuna rahmata rabbik ndax nit ñi ñoom ñooy séddale wërsëgal yàlla wi suñu borom mu ni déedéet nahnu qasanna baynahum maichatahum fi lxayaati dunia ndeke yoo rek wërsëg weeg dund wi yàlla moo ko séddale wa rafaana baadahum fawqa baadin darajaat yàlla nee na maa jël sama loxol bopp yëkkati ñenn ñi ci kaw ñenn ñi kii maa ko def chef kii ma def ko ñu seete kii di buur kii di ñu bummi kee kee nekk kilifa njaatige kii nekk surga kii nekk patron kii nekk employé bu ñuy liggéey ah kii nekk borom alal kii ñàkk kee am kii néewle kii njoor kee gàtt kii xeet kii ñuul kii bari le kii néew le yooyu yëpp séddale sunu borom la subhanahu wa taala sunu borom mu ni maa séddalee noonu mu ni war a faana baadahum fawqa baadin darajaat maa yëkkatil ñenn ñi ay daraja ca kaw nga xam ni ndombay tànk yu kawe lañ am waaye lu tax li yettaxida baaduhum baadan suxriya ngir ñenn ñi féete kaw ñu ca def loolu wallahi dunganeel waaye séddab yàlla demee noonu yàlla ci boppam faw mu am ku jiite am ku topp ca gannaaw faw am patron am kuñ jiite faw am ku am am ku ñàkk sunu borom bu defoon ñëpp ñàkk dama ne sa fenêtre kër bii bis bu dajjee ko doo am ko la ko daajal bu ñëpp amoon du sotti bu fekkoon ñëpp daa am dama ne la bis bu saw daal yàqoo di nga génn wër ba sonte doo am ko la ko defaral kon am na koo xam ni faw sunu borom def ko defarkatu daal ngir muy lekk ci wërsëgu ki nga xam ni moom am na lu bari faw suñu borom yàlla subhanahu wa taala def kenn ki mu nekk kuy liggéey ci ay wey néew lool ñu xeeb ko lool amul sa oto bu mu war waaye nag waa jay wax otom faw kii di nekk ci wërsëgam wi kee ay butéel lay jaay kii ay saako lay jaay ke wallahi léeg-léeg da ngay génn gis kuy jaay loo xam ne yow bu du mën a gëm di nga gëm ni yàlla ay séddale wërsëg ay ree da lay jàpp lu ñàkk fayda ñàkk fayda saa saa sax leen ci sun ba lay dem di for di jaay waaye loolu réeruwut de li muy wane mooy yàlla ci boppam kenn ku nekk dafa sédd fa sa wërsëg di génne la maxaalata min dalik li nga war a lekk mënul muusa ka muccat maa nit ñi soxor bañ la koo jox ba du tee di nga ko lekk borom bi subhanahu wa taala mu ni wa rahmatu rabbika xayrun ma yajmaun yërmande yàlla moo gën fuuf li ñuy bàkkoog li ñuy dajale muy alal ju bari ci waaye mbokk yi nu xam ni différence bi am distance bi am ci diggante ñi am ak ñi ñàkk loolu tekkiwul ni ñi am lu bari mooy ñi am ñi amut mooy ñi ñàkk déedéet ki yàlla jox alal yàlla da koy natt ngir xool moom nu muy def ci alal ji ki yàlla xañ yàlla day xool ba xam moom ndax gërëm na li yàlla def ci moom wala déet sa 1000 francs 1000 francs yi ak sa 500 500 yi la yàlla joxandoo te wallahi yàlla ko baaxul gis nga am na koo xam ne yàlla di ko jox par 1000 francs ak par 5000 loolaay tax mu dugg àjjana ndax yàlla daa xam ci bakkanam bi ak mbonaay ak kii buy am di bew kon yàlla faaw nga koy jox ay 1000 francs 1000 francs pour du bew ndax mu dugg àjjana xamoo ci dara am na koo xam ni bakkanam bi dafa bon ba mu ñàkkee da nekk bi yéefar suñu borom jox ko ngir xittile ko ca loola nattuwaale ko ndax dina geestu ñi nga xam ne ñoom la tane nit ñi li ñu nettee du noonu diwa gën ndax moom moo ëppale alal moo gën a rafet kër moo gën a rafet yére moo gën a defar nangam déedéet loolu ab nattu la boo xam ne suñu borom kenn ku leen da lay natt kee ndax dina sant kii ndax dina muñ dafa dafa dafa am seetlu sax boo xam ne nag kuy seetlu teg ci alquran ak sunna dafa mel ni sax nag faf bokk ci ñàkk sax wala lu digg doomu rek moo gën ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay texte yu bari day wax ni li muy tiit nekkul ngeen nekk ay bokkaalekatu yàlla waaye la may tiit mooy àddina daw wutti leen ngeen commencé di ko xëccoo daw seen gannaaw moo tax ñëw na ci xadis yonente yàlla bi sallam di wax ni fitnay samaw xeet day fitnay alal la moo tax benn waxkat di wax wax ju am solo mu ne xulil qanaata min dunyaaka warda biha yow bu nit ñi séddoo mu ni jëlal sëb cër mu nekk doylu law lam yakun laka illa raxatal badani bu fekkoon ci amoo dara ci àddina lu dut saw yaram wér na rek am nga kàttan rek mu ni gëmal ni loola doy na sëkk mu ni xoolal ñi nga xam ne dañoo dajale àddina ak la ca biiram xool leen rek bis ba ñuy faatu hal raxa minha bi gayri alqutni walkafan kooka am lu dut jeex mu ni koj ko bisaf deem mu ne keroog ba muy wuy ci boromam ca àllaaxira ndax yóbbaale na lu dul wëtteen yeen ko defal ak parfum ban ko gëttal déedéet amut lu mu yóbbaale xanaa ay jëfam bu deful woon lu baax toskare ñeel na ko fala taxurannaka dunya wazinatuha wazinataha addina ak li nga xam ni mooy ay taar taaram bu mu la wor wandur ila fi'liha fi l ahli wal watan xoolal addina ña fi amoon fu ñu mujj anañu tey borom milliards yeen fi doon coow mille neuf cent cinquante anamu borom taas kaw mu gënoon guddoon ko guddee fii ci Dakar te 1800 nangam anamu kooku wax ay na sëtam ana sëtam sax la ñuy wax duñu waxat sax anamu lu ko alal di jëriñ ma aghna anhu maalu alal di lu mu ko jëriñ halaka anhu sultaanu bu borom yoroon dem na jëriñu ko dara kon ndekete li nga am mooy li nga doylu ak yiw yi nga xam ne mun nga yóbbante àllaaxira foofu mënul ñàkk sax nag ak taxaw seetlu geneen gun def ñenn ci mbokk yi nga xam ne ñu baax lan ndeysaan dañuy góorgóorlu ci diine di dund l'islam piir nag léeg-léeg sax danañ juum ci somb bi ndax dañuy foog ni ba ba sax dañuy tooñ baatab xanaa baatab doylu dañ koy tooñ ni ñu koy tooñee mooy dañuy jàpp ni doylu mooy nit ki daal na na na na na lekk lu naqari bu mu am oto bu rafet bu mu am kër gu rafet moom daal toujours daal ba mu gën a ñàkkee fay nam ñu gën a ñàkkee solo déedéet loolu du doylu de loolu mafhum la boo xam ne xaatee la dafa njuum njuumte bal kay doomu aadama ci boppam ko war a gudd ay mbébét la comme ni asamaan kawe ila samay kay faru fi at da ngay kawe ay mbébét pour bëgg a defaral l'islam wala defar sa àllaaxira kawe ba mel ni asamaan ni mu kawe wa ila jibaali kay fa nusibat dëgër nag ci sa pas-pas ba montagne ni mu dëgëree wa ila ardi kay fa sutihat nga nangu nag tàlle ñareer mel ni suuf nit ñi këdd ci sa kaw di lor di indi ay musiba yow bu nawet jotee nga saxalal leen ah su boobaa nag bis boo melee ni nekk nga daa yi tege mu ni fa zakkir innama anta mudakkir gis nga su boobaa sa wax day defar sa jëf day defar insha allah kon day nekkate yoo rek maanaam mafhum bi ci boppam mooy doomu aadama ci boppam yooyu muy jàpp doonte ma ngay góorgóorlu ci dina ay njuumte la kon lan moo dul njuumte ma ne la li dul njuumte mooy doomu aadama ci moom dafa xir ba kanam daa xir ci àddina ni ko yàlla bindee mooy du suur du doyal toujours rek ma ngay dajale rek alal dina gën a bari tabax bi daa am ko bu ma bu ma rokkasee bu déwénee ma rokkasat mu jëmaat kaw ah alal dina gën a bari koom-koom bi na gën a bari jur gi na gën a bari nag yi nag daaw ñeent fukk la woon déwén a nekk juróom-ñett fukk dem bay daanaka que yow yaay nekk jaamu alal ji yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa alihi wa sallam law kaana libni aadama waadiyaani min dahab doomu aadama su amoon ñaari xur ci misaal bu ngeen xamul xur ma ni leen soo demoon ca ca àll bi bët bët tool bu ngand ba ngeen fay dégg ak nam tool yonent yàlla nee ku ci amoon ñaar mu fees dell ak or xool waxul ay nag xam ngeen or moom mu fees dell ak or moo gën a valeur mu fees dell ak i nag mu fees dell ak or sax moo gën a valeur mu fees dell ak i oto mu fees dell ak or nga am ci ñaar yéen ci yàlla bi nee na loolu du la tax doyal da ngay bëgg chaque jour rek mu nekkaat ñett gis nga doomu aadama inna lillahi wa inna ilayhi rajiun gis nga tomb bi du man du yéen du keneen ku ci ku ci ku yàlla dimbal rek mu ticc doomu aadama lu mu am rek bët baa ngi koy fàtte ma ngay séen fa leneen lu mu am fàtte na lool gisatu ko ci xoolal bi nga koy yóotu ba nga yóotu ba danga ci son koo yaakaar ñaanal ma dugg na fii coono bu dul jeex waaye gis nga mi nga ko amee fàtte nga ko léegi licence ngay yóotu doomu aadama mel noonu gis nga buntu boobu bu tëjuwut moo lay yóbbee ci buntu bii may wax doomu aadama day dem ba mbémitam yu ëpp yooyu day dem ba da koy fàttaloo yàlla subhanahu wa taala yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam jibril day wax yu na ma nee na ma te déglu leen xadis bi bu baax inna ruux alqudus nafasa fi rawayi jibril ci boppam muy malaakam suñu borom moomee nee na ma amul benn bakkan buy faatu lu dul balaa moo faatu aw fanam dana mat allahu akbar gis nga dañ koo fital mu dee dañ koo jëm paaka dañ koo lii daa fekk daa jeex rek wasaayil yi wasaayil yi yëpp daa fekk ca la noonu waaye daa jeex rek coow li yëpp jëru ko war bi nag ñoom am nañ tàgge boo dégg jàppal diw waaye loolu jël ko amul bakkan buy faat lu dul aw fanama jeex yàlla nag bu fan way jeex nu ne la koy jaar loolu la nit ñi gëm moo tax gis nga gëm dogale yàlla sonta la buntu ba buntu bu am solo beneen bi ci def mooy wërsëgam faw mu jot si mënoo muus ak mu cet ba doo ci jot nga waaye na ngeen ragal yàlla te rafetal ni ngeen di wutee wërsëg wërsëg bi la yàlla lay jox lu mu yéex a yéex a yegg si bul ko wut ci wutin wu araam ndax la fa loxal yàlla kenn du ko jël ci mooy yàlla mas na maa déglu kenn ci mag yi fi nekkoon wax wax juma yéem sax mu ni ki dem sàcc cinq mille mu ni kooku cinq mille ba mu sàcc wërsëgam la daa yàkkamti moo tax mu jaarale ko ci yoon wu araam wax ju wax ju wax ju am solo la ki sàcc cinq mille ak jàmbur mu ni loola mu sàcc dafa yàkkamti waaye wërsëgam la war a doon ndax nam def ba jot ca moo lay wan ni wërsëgam la wax ju am solo gis na mu nekk loolu wërsëgam même bu ko bëggee sàcc dañ koy jàpp waa ji day jug sàcc réussir mu jug sàcc échec lan sàcc réussir daa fekk wërsëgam la woon mu yàkkamti dem jëli ko ci anam wu araam mu perte dix perte à waa ji dem sàcc réussirul daa fekk wërsëgam la woon mu dem yàkkamti ko du woon wërsëgam mu dem di ko jëli suñu borom wan ko ni ko du ko wër du sa wërsëg mu boole am bàkkaar ak toroxi àddina kon mbokk yi li nga am sa wërsëg faw nga jot gis nga fi mu nekk nii boo noo muusa ka mbuccët ba biñ la fale nombre de jours yi ngay am weer yi ngay am la nga war a fayee ko loolu rek ngay lekk bis boo lekkee ba bis ba jeex dama ne la ruy buñ la koy xool dana génn benn mandarine buñ la ko xoloon dama ne sa yii ak sa bakkan yi lay jaar génn ndax yàlla bu xasee permitir biir bi tëj ko dara dootu duggati ndox ci ci boppam ndox mi gën a oyof nga xam ne rukk sum jaar jàll sax yomb na du jaar jàll déedéet parce que day fekk yàlla tëj na fermeture bi dara dootul duggati kon nit ki na gëm ni li ma war a am faw faw faw ma jot faw nga jot ci nag dëgg la ndax da ngay xëy tëdd nga ne man demu dewuma liggéey comme dinaa ci jot déedéet ndax da ngaa nu ma neex laay wutee déedéet kii séddale moo la sant jugal nga tës si sabab lu sabab lu ci boppam daa bokk ci buntu yi nga xam dañ koy gëmaale yàlla subhanahu wa taala kon yàlla mu ni te xadis boobu moo xadis la bu wér yàlla sonta la mu ni bu kenn di mbébét ci jigéen ñi naan tey su ma yàlla defoon góor tey su ma meloon nii comme ni ko jigéen ñi doon dafa jamono saxaaba ya yàlla di leen yéex mu ni déedéet li rijaali nasibu mimma tasabu wa li nisaai nasibu mimma tasabna wasalu allah min fadli waa nekk kon nooy def li nga war a def mooy ah man day wax dëgg yàlla cey bu ma yàlla wërsëgal ay ay yàlla naa mel ni liw yàlla naa mel ni liw amul solo laaj leen ña ko ndox ci qaaruna xissa bu gudd boobee nga xam ne gis ngeen ko ba nit ñi ñee ko naan yàlla ital na mit la ma wutee qaaruun waaye keroog ba ko yàlla alagee dañu way ka anna allaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir lawla an manna allahu alayna la xasafa bina way ka annahu la yuflihu alkafirun ah kon ndekete nit ki am alal ngay ñaan mel ni moom du mbir mi loolu la yàlla yow mi nga xam ne yaay séddale ba ba nga sàkkee bàyyi aadama ba liir bi mujjee juddu ci kaw suuf ku fi jaar yaa koy jox wërsëg milliards yi nit ñi am loola lépp buñ ko dajalee yaa ko moom suñ ko tegoon ci sa loxob ndeyjoor wàññeeku dara yent yàlla bi nee na gis ngeen yàlla ba àddina bi sosoo ba tey mi ngi séddale wërsëg te lam tee ca loxob ndeyjoor ba sax mi ngi mel ni comp jógeeku ca allahu akbar xool multi milliards yi nga fiy dégg ay doomu aadama di ko moom ñu ne loolu lépp soo ko dajaloon teg ko ci loxol yàlla lam ca la ca loxob ndeyjooram ba lim ci jot a joxe dafa mel ni ak comp jógeeku ca xam nga nu mu mel la mi ngi mel ni picc mi dem ba ca géej ba wala ca lag ba mu mën a naan daal di sëgg rek buux ak dem defe ne jël na lu bari fekk na moom la mu jël sax moom kenn gisu ko sax faf noonu la mel ci loxol suñu borom subhanahu wa taala lan mooy ndayu nga dem ñaan yàlla may la yàlla may ma yàlla war sëggal ma waaye yàlla naa mel diw amul solo gis nga ki ngay bëgg mel ni moom amal na boo dee musiba ko dal suñu génn góor gu baax doon nañu leen ci li day sànni mun dañoo taxaw buntu hôpital benn waaye fekk leen fa bor oto bu rafet oto boo xam ni kéemaan la xam nga nit ñi ni ñu ni ñu ni ñu ñàkkee yaru rek ci l'islam bépp bàyyi liñ doon def yépp di ko xool rek di ko xool di ko xool xam naa waa ji mu nekk xakim moom it su ñëw mu ne leen xam ngeen lu lan moo fi indi ñu ne ko déer muy damay saw si damay saw si dafa am feebar boo xam ne bëggee saw faaw mu ñëw hôpital ñu monteel ko benn appareil mu doog a saw xool subhanallah nga ne yow yàlla nga mel ni kooku ndax yow bëgg ngaa mel noonu bu dee dofoo bëgg ko mel noonu kon léeg-léeg li ngay wax ne yàlla naa mel ni moom xamoo ko ndekke ne la yàlla def noonu la baaxee yaa ko gisul waaye xoolal li ñuy dund tey nun ak mbit mbit xir gi nu xir ci àddina kenn ku ne la nga am yaa ngay kof ko fa la ka màgg màggal ka megg meggal ngir na gën a bari kër gi moom naa toj fii daaneel fële mbëkk fële jubbanti fii saa saa sax dama koy karale ba noppi nag dajji yooyu parce que karab bii daa xeewi max karabani na subhanallah tanafus fi dunya dëgg dëgg dëgg ngay gis nag koo xam ni moom ni mu yittewoo lijjanti àllaaxiraam addinaam lijjantiwu ko àllaaxiraam noonu yëg nga yéemu ci yàlla damay ñëw ci cité bii jënd bi benn kër mu ne kër gu baax boo xam ne man bu ma ci doon daw ba fatt ma jëndi keroog balaa maasale ko ba maasaloo boo bu bucc na mu jëm kaw mel ni sa waay koo xamante ni ci asamaan sa nga bëgg a dem mel ni kuy fitnaan nit ñi mu wóor ni li ëpp ci nit ñi seen mbiri àddina la ñuy teewaay yi tiwuñ seen digganteeg seen borom moo tax yéen ci yàlla te boole koon nag kenn ku ne nag li sa loxo gisoo ko la sa loxol morom rek yow li nga yore yaa ngi yore àddina li ci biiram waaye gisoo ko li nit yore rek cay diw ak otoom cay diw ak këram cay diw ak toolam cay diw ak nangam nangam gis nga loolu dafay dem ba dafay xomaat loo sa xol daf koy yàq su yàggee da nga dem ba dootoo amati cër ci yàlla subhanahu wa taala yonent bi nee na fitna am na ci xeet wu ne waaye fitna ji sama xeet nar a am mooy fitna yi alal yonent bi nee na taayta abdu dinaar taskare ñeel na kiy jaamu dinaar taayta abdu dirham taskare ñeel na kiy jaamu dërëm kooku day boo ko joxee kontaan na boo ko joxut mer na subhanallah gis nga am na nit ñoo xam ne dañoo dem ba da ngay xam ni ñii ilaahuhum mooy almaal seen alal mooy yàlla seen alal seen yàlla mooy seen alal yow loo xam ne man boo ko séqoon ak man ñu nar cee coow ma bàyyee la da ngay séq ak moom cinq mille wala mille franc te fekk mi ngi am ay milliards ma ni mu jaral ko ci dem tribunal gis nga loolu bu ko ci xasee dafa feebar da nga koy ñaanal da nga dem nga ñaanal ko yàlla kii daa feebar lu tax mu feebar mooy yonent bee ko ñaanal ak toskare toskare ga tàbbi ci kawam taayita toskare ñeel na abdu dinaar kii jaamu dinaar kii jaamu dina si ñuy fekk ma ma mi ngi ñëw wàcc na dugg na fa da nga dem ba say zikr doo ko talati conteneur bi wàcc na démb suba lay wàcc ginnaaw suba lay ñëw kar kar téléphone joo xam subhaanal malikil quddus yow da ngay dem ba benn benn benn jaamu yàlla dootoo ko teew la te yaa ngi yor lu dul jeex mbokk yi lii neex na tëdd mënoo nelaw lii neex na mënoo fexe fexe fexe ba sa oto yi li muy bari bari bari nga warandoo ñaari oto mënta neex benn oto rek ngay war xanaa war bii wàcc ma ca la jël beneen mënoo muus ak a muccat ba sol ñaari peer daal benn rek ngay sol nag ak li nga am li mu bari bari bari mënoo muus ak a muccat ba yor ñaari téléphone di wuyoonoo ñaari yëpp bal sax dañuy yor téléphone ba am ñaari bis waaw da ngay wuy benn bi soo paree wuy ba ca def kon li am mooy doomu aadama ci moom na jël la mu soxla rek waxul la bul jëlal la nga soxla waaye soo paree doy lool loola nga yem ko yonente bi mu ni sallallahu alayhi wa sallam kon toskare ñeel na ki nga xam ni mooy jaamu dërëm ak dinaar Ali ibn Abi Talib mu ni képp koo xam ni addinaa nekk ca xolam wala dinaar ak dërëm mu ne ndeysaan fii ak muy dee rek ñooña lay jaamu yàlla mu ni wala tamuddanna aynayka ila mattana bihi azwajan minhum yow yonent bi yow julit bi bul sànni sa bët ci ñi nga xam ne yàlla da lay defal poñetam àddina ah ngay bëgg a mel ni ñoom mu ni mukk bu ko xalaat wa rizqu rabbika xayrun wa abqa la yàlla dina dencal loolu laa gën fuuf te loolu day des lii day jeex loolu mi ngi taaha imam ibni kathir al mufassir al xaafid mu ni ay bul xool sa bët ci gaa ñi nga xam dañoo fetteerlu alal yi biiw ci seen kaw muy loolu la ñu yore zahratun zaila ah puurit la muy dem rek wa ni'matun xaaila xiiwal la goo xamante ni daanaka lee moo ne gannaaw yent yàlla bi ni sallallahu alayhi wasallam texe ñeel na ki nga xam ni daa tuub dugg ci lislaam xëy yeewu yàlla may ko wërsëg wu doy sëg te mu doy loolu ko yàlla jox loolu mi ngi ci muslim yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ni képp ku yeewu aminan fii sir bi bi nga yeewoo wàcce sa tànk dara xew deewoo sa doom deew sa jabar deew kon jàmm am na mu arfan fii jasadi jàmm am na ci sa yaram amut lu lay metti wa indahu quutu yawmi bi nga xëyee am nga dépense bis boobee gis nga dépense bis boobee mu ni fa ka annama xiidat lahu dunia bi xadafiriha mi ngi mel ni àddina ak li ci biiram la la yàlla déew ci garab est ce que nit ñi ñu ngi gisee noonu déedéet da ngay lijjanti dépense ginnaawaataati suba di xamoo ba xam yow tey añ dina la fekkam déet kon muusoo bu fekkee muus ngay woote muusoo li nga war a lijjanti mooy yiw wala yi fekki àllaaxira ëllëg ndax loola moom bu bu bu dee tey boo deeyut suba loola rek dina la amal solo yonent bi mu ni sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne addinaa yitteem yàlla dana jaxase ay li muy lijjanti ci kanamam du mën a sotti lëj lool lëj lool metti lool yàlla jël ak ñàkkam teg ko ci diggante ñaari bëtam subhanallah day am lu dul jeex waaye moom li mu gis mooy amul dara sawaay na nga def waaye sama ma ne sanawaa ba ah affaire dara doxul yow bu dara doxuloon nga dee bu dara doxuloon nga di jant baa ngi dox weer waa ngi dox sa montre bi nga takk mi ngi dox yow say ñaari tànk ngi dox sa ñeenti puno yaa ngi dox yaa ngi si ñee teg ba pare nga ne dara doxul loolu mooy ñàkk a sant yàlla dëgg ndax mi ngi dox waaw mi ngi dox bu baax a baax ndax bu dara doxoon da ngay dee doo ko fekkee yow yéen ci mu ni sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon kooku day yàlla defal na ko àddina ak la ca biiram kon doomu aadama day yor lu dul jeex waaye du ko yëg waaye képp koo xam ni àllaaxira mooy sa yitte yàlla day yombal say mbir te it yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam da ngay gis ni yow ku am nga mooy li ma doon misaal sànq koo xam ne amul dara waaye moom jàpp na ni fi ne moo gën a am ñëpp ndax am na wërsëg ma ngay naan ataaya léeg-léeg mu yooyu gerte caaf am na daal yu sol am na yére yoo xam bu til mi mën na koo fóotal xalaas jeex na da ngay dee àddina bi su fekkente ni xamoo kañ nga fiy jóge loolu doy na moo tax benn waaye bu ñuy wax Yunus ibn Ubayd kii kilifa yu mag yi la bokk benn ndongoom daa ñëw ni ko waaw man day tëj yi fii daa dépense amul kër ga man di jàmbat jàmbat tarararararararar bu mbir mi yeeg Yunus di ko déglu mu waxee ba yeggal mu ne ko waaw léegi kaay ma tagg sa bopp bi jox la junnee dërëm mu ne ko ah loolu koy jëru kaay waa léegi kon bàyyi naa bopp bi kaay ma tagg sa loxom ndeyjoor ma jox la junni mu ne ko déedéet ma dagg sa tànkab li ma lim lu mu ne ko ma dagg rek mu ne ko déedéet mu ne ko yow yaa ngi nii bu ma la proposé dagg ko jox la junni nga bañ kon yow yaa ngi ay junni junni jàpp julee ko sa kër bu ma jógal fi waay wax na ko dëgg xoolal sa bët yi kaay ñu fukk sa bët yi jox la loo dépense fii ba semaine bii ñëw ndax di nga nangu déedéet waa ji yore oto bu baax kaay ñu may la ko léegi waaye sa ñaari tànk yëpp da ngay wax tànk ñu dagg ko est-ce que di nga bëgg ndekete ay milliards nga yore yow di dox te yóbboo xool sa milliards yi ngay garde fekk yow miy garde milliards yi ay multi milliards nga yow yaa ngi garde milliards yi taxaw yor sa fital ngir ku ñëw bu mu laal milliards yi fekk yow yow sa bopp nga waroon a garde ndax yow ci jëmmi boppam yaa gën a valeur li ngay garde ndax yow ay milliards la waaye doomu aadama du gisee noonu moo tax musiba la kon doomu ndey kenn ku ci nekk daa war a doyloo li ko yàlla seet mu bokk ci ñi nga xam ne ñoo gën a oomal xoolal ñii ma nar a lim nga xam ne ay borom xam-xam yu mag lañu yàlla jox leen loo xam ne ñun ñëpp ku sañoon mel ni ñoom waaye mbindin wa leen yàlla joxoon buñ buñ la romboon dem xamoo ni ñii la buñ ne la kaay yàlla bindee ni danaan bëgguma ñetti imaam yu mag a ngi nii imam Ahmad imam Ahmad ak Ata ibn Abi Ribah ñett ñi kenn ku ci nekk yàlla da ko joxoon melokaan woo xam ni dafa doy waa ba yow bu la romboon dem xamoo ni kii mooy diw bu ñee la kaay yàlla bindee ni nga di bëgguma jëlal kii imam Ata ibn Abi Ribah lii may wax jët ñii may wax ñi jàng xam nañ leen imam yu mag la ñu ñuy bàkkoo ci l'islam tey Ata ibn Abi Ribah yàlla da ko defoon melokaan woo xam dafa ragloo raglu karaw gu ci xaaral kanam goo xam yi dafa tàppandaar mel melokaan woo xam ni kéemaan la yow boo ko gisee sax doo bëgg a mel ni moom imaam la joo xam ni àddina bi yépp dañ ko doon fekk ci ngir xam-xam kenn ngi nii soo delloo ci borom xam ne ñoo xam ne imaam Souleymane ibn Abdul Malik benn bis dafa ñëw ànd ak ñaari doomam ñu toog ci afa di ko laaj affaire aj muy wax ñu koy laaj muy wax ñu koy laaj muy wax ba jub dem xale yi bëgg noo dem waaye afa li muy wax ak ñoom ñëpp bëgg leen xool mi ngi xool fële rek bañ jógee Souleymane mu ne yéen sama ñaari doom jug leen wuti xam-xam ndax toskare yi ñu dal tey ci affaire mi ak melokaan yu mel nga xam ne ñun ñoo ko woon du mooy duñ ko xool xam-xam bi ko yàlla wërsëg moo tax soxlaalul dara ba du mooy ñu gàcce gi dootuma dalal sama dund gis nga xoolal melokaan bi ko yàlla jox keneen a ngi nii ku ñuy wax Ahnaf ibn Qays arab yi yëpp dëppoo nañ ci ni kuy xereñ kuy xereñ bañ ni la yaag Ahnaf ñoo yem tàgg nañ la xool dafa tuuti ndeysaan Ahnaf ndigg li dafa am dafa weng jug-jug bu rëy la am fii ndeysaan tànk yi linki mu tuuti melokaan boo xam ne yow doo bëgg sax mel noona imam Amash nga xam ne tey booy jàng xam-xamu xadis bu ñu la tuddalee amash rek tuddal lañ la mbëri ci xam-xamu xadis gis nga amash ab jaam la woon yemul ci loolu dafa ñàkkoon foo ko fekk yëre yu xuttaatoo lay sol léeg-léeg am na ñuy wax da daan toog ak sax kawar bopp bi du ko wat ndax doom lu mu ko wate subhanallahi alazim te ñu koy bàkkoo ci lislaam ndax ni mu mel ci xam-xam kon daal damaa bëgg a wax ni kon nii la yàlla seeti melokaan wi mu la jox woowu baax na li mu la jox ci alal loolu baax na sa kër ak sàkket gi doy loo ko rek wallahi bul ñee ñi am tabax xamoo lu ñuy fekk àllaaxira ban booy li jënd ay titre foncier li jënd ko ci àllaaxira ja titre foncier boo xamante ni boo dee dañ koy signé jox ko say doom boo moomoo ko titre foncier ci boppam bu dee ñi koy wax xam na li ñuy wax lan la mooy ba ca àllaaxira nga xam ne yaa ko moom ilal abad titre foncier lu mu tuuti tuuti yaa koy moom boo dee kenn di ko doon parce que dëkk ba nga koy moomee amut dee noo ngi ñaan suñu borom mu def ci suñu xol yi ak doylu noo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala li nga xam ne mooy àddina ak bëgg ko ak di xëccoo jëm ci moom nga ñuy xañ àjjana yal na yàlla musal na ci yal na yàlla tàggat suñuy xol sol ci leeru ngëmbam fees rocce ñu ci lépp loo xam ne mooy fitna yi bëgg alal ak yàquteeg mbonteeg caay-caay loolu lu yomb suñu borom la allahuma inna nasaluka alhuda waltuqa walaafafa walghina rabbana hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahhab ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى أملنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين